daral bi dafa bëri feebar daral bi mën nañu wax dafa waga fépp a feebar côté financement yi dañuy dem xool fee benn nit bu nekkul ci élevage ñu jox ko benn 500 millions demal jëndi xar 6 mois avant ñu jox ko ñu ñëw fii ci daral bi xool benn 10 personnes 15 personnes jox leen ku nekk 2 millions ñu ne jox leen daral bi sax donc dañuy diviser dañuy diviser daral bi ñii am nañ ñii amuñ fekk kenn amul tere nañ booy liggéey kenn mënatul liggéey ci jur ñun suñu ngor rek moo ñu fi bàyyi mais fii amatuñ fi dara parce que lu ñu war am ñun tabaski lañ doon fay suñu boor yëpp waaw ndox mee courant bi ñëw na mais ndox mi courant bi su ñëwee ah, nekk fi nit nag bu ñu sonnee dañuy wax te président Macky Sall amuñ lu dul yow jeunesse bi ak mag ñi ñooy liggéey xar xar fii may jëndee xar bu ñuy waxee éleveur nga yor kayit ak saak di bind xar 3 millions 4 millions kenn mënu kaa njënd xale yi ñoo ko jëli dem Mali dem Mauritanie dañuy dem si àll bi ñëw dégg ay gaynde dégg lépp yàlla leen sutural ay xoj agressé dinañ bak si àdduna lépp ñu ngi def jël xar doo nekk si bureau ak climatiseur bu sedd guy ñu jox ay millions nga def éleveur nga président Macky Sall boo joxee ñeneen jël leen audience te jëloo dara bi jëloo koo kenn audience élevage tey dafa retard élevage tey soo nee daral baal élevage ngay wax ndax xar lañ fiy jaay ak béy président Mamadou Amath Talla ñëw na journée bu ñu wax woote nañ élevage mais ñun jàpp ñu loolu jour élevage la ndax président Mamadou Amath Talla su ñëwee ba palais recevoir uñ ko ñu ne recevoir nañ élevage recevoir uñu élevage élevage bi ñuy yor élevage naan ñooy élevage mooy éleveur dimanche yi ñooñu duñuy élevage ñu dañuy mbubboo élevage ndax tey ñu téye woon suñu xar yi ku fiy ngénte mbiskit ngay jënd duñu téye xar pour l'instant lan lañ bëgg mooy président la république mu recevoir président Mamadou Amath Talla mu recevoir daral bi mu recevoir bi